démb bi dafa mel ni waa Yewwi génn nañu. Hmm. mais ci biir déclaration ki di Birame Souleye nga xam ne moo jiite groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi dafa yëkkati ay kàddu tey sax yëg nañu ne euh, nag jéggalu na mais qu'est-ce qui fait que peut-être acteurs politiques yi parfois bi ñuy wax di a ëppal ci kàddu yi ak ni mel ba finalement convocation di ci di ci jëm. xam nga sëñ Mama dañuy fàtte ne toujours ñun ñooy kan. Mm-hmm. ñun ay sénégalais lañu ay nit ku ñuul lañu fii Afrique lañu nekk ku la mag da nga ko war a may cër ku la mag ku ne. da ko may war may cër donc loolu déjà mënuñu nekk c'est-à-dire que damay gis gars yi ñuy am yenn comportement yi baaxul Birame Souleye eh, ndaw la ci Macky Sall rien ko pour ça rek waroon ko may cër deuxièmement président de la République la mais en dehors de ça biram Souleye maire la député la et puis moom mooy numéro de Ousmane Sonko bu ñu waxee Ousmane Sonko nekku fii je pense que moom la war a doon donc am na wax yoo xam ne waxu ñaaw je le condamne fermement je condamne fermement les propos de Birame Souleye parce que lu mu wax dafa ñaaw ce n'est pas quelque chose boo xam ne dañ koy wax suñu biir c'est-à-dire que politique warlu justifier lépp xam nga lu tax warlu justifier lépp euh, muy waa waa PASTEF muy waa euh, PDS muy waa APR kenn amu fii secret pour mun a fexe en sorte que suba boo ñëwee pouvoir situation sénégalais yi mu mu régler tout de suite dafa laaj liggéey mhm. liggéey boobu nag dafa laaj dal dal mënul nekk ci ay xeex ay xuloo ay réwande excusez-moi donc Birame Souleye lu mu wax waru ko woon wax te man je man su ma nekkoon place bu Pastef tey mais damay génn communiqué di ko sanctionné non seulement may ñaawul wax boobu mu wax mais dama koy sanctionné. mais moom jégalu na ah. waaw mais jégalu gis nga sëriñ sëriñ Mame loolu laa doon wax ay nit sànq xam nga Sénégal ñun lu ñu bugg nag dafa yomb da ngay gis nit ba paree nga ñëw bu max ko yow yaa ko tey nga bu max ko nga ne ko baal muy muy kaas nga ne ko non du wax naa la nga baal ma loolu baal baal simplement nit ku baal ça veut que nangu na ne jum na. mais ça veut dire que boo defee dara dafa waram am conséquence man d' euh, ñu teg ko kaso mais man d' accord naa waa PASTEF ñu jël seen décision ñu sanctionné ko mu xam ni lu mu def mhm. mais c' est trop facile. mais ci beneen wàll yi gis nañ fi ay nit yëkkati kàddu yu doy war mais ñooñu a rey ñii dañ leen eh, loolu du dëgg du yoon dañ leen war a woo dañ leen war a convoqué dañ leen war a seen parti ak ñi seen kilifa yi dañ leen war a sanctionné loolu mooy yoon mais dëgg nag bu ñu koy waxee du ñu ko waxee ci benn boor c'est pas parce que ñeneen ñu ngi ci jumte que ñun opposition tam dañu war a nekk ci jumte su mhm. dee nekkul ci dëgg lu mu wax du dëgg du yoon du jaa jaadul mhm. du ay ay ay baat baat yoo xam ne dañ koy xaarandi ci moom donc de ce point de vue su fekkee am na ñeneen ñu def yu mel noonu nañ leen woo. ci tur ci police nañ leen nu benn juge dëggul leen. li ñu su fekkee dañ leen war a teg daal ñu daan def leen ko mais seen parti politique yi muy APR muy keneen dañ leen war a woo itam sanctionné leen tey li gën a li gën a jaadu mooy Pastef na sanctionné Birame Souleye mais li koy indi est-ce que nekkul nekk président nekk chef de parti parce que tey bi wax dégg naa ko mu président euh, Macky Sall bu APR lay waxal est-ce que loolu aussi c'est pas problématique moom gëmul nekk ñàkk doon président parti aussi est-ce que loolu indi jaxasoo. waaw mais ça veut dire que euh, un président de la république. Oui. ou un, un chef de parti. Oui. on a le droit de lui dire ce qu'on veut. ah nga am droit comme diw parti chef de parti la comme dafay politique. Mhm. lu la neex nga wax ci wax ci moom. non je pense que loolu amul benn relation. Mhm. lii la relation c'est que mënuñu ko su su nekkul woon su fekkee parti politique ci politique la ñuy wax dañu ne diffamation. su fekkee président de la république la ñu ne offense au chef de l'État donc daan donc de ce point de vue là mais loolu warul nekk une justification lu ñaaw bu amee waruñ ci nekk fii di bëgg a comprendre. dafa jum rek. te moom ci boppam xam na ne. nangu na ne jum na. donc à partir de ce moment là. nañu jàpp ne rek jum na. te keneen waru ko def. c'est-à-dire que lu ñu contre contre contre Macky surtout période boo xam ne Macky mu ngi indi daal ci réew mi. ñu ne problème bi mooy candidature am mu génn wax sénégalais yi ne bokkatuma léegi. loolu dañu war a comprendre message boobu dem dans le sens de l'apaisement mais doo génne nii kii dafay def lii dafay def la te su fekkoon moom nga koy jiiñ su fekkoon mënoon na ko def yow sa yow wii sa bopp walla sa sa secrétaire général mënuñu instant bi dee nañu bu yàgg donc il faut que nit yi tam ñu bàyyi seen xel lu ñuy wax ok waa APR ñu ne suba nañ dem buntu palais dem fa tàccu opposition bi moom kasaroo la ne buntu palais tàccu président ci dogal bu mu jël loolu it naka nga ko gisee avec ce fameux arrêté de Ousmane Ngom bi <laughs> interdit rassemblement ci. ah oui ça c'est intéressant j'espère bien que <laughs> euh, Antoine Diome dina leen gazé suba <laughs> mais en tout état de cause oui je pense qu'ils ont le droit de célébrer leur champion. Mhm. Et euh, je crois que c'est ça tey say ñun suñu parti su fekkee Mactar Soura mi nekk président sama parti bu defee lu rafet. dañ koy sargal. donc seen milit seen seen njiit bu defee lu rafet dañ leen war a bàyyi man je pense que Antoine Diome war na mun a euh, ferme les yeux sur ça bàyyi leen ñu dem ba ci palais. Euh, man su ma amee jot sax dinaa fa jaar. Euh, pour acclamer le président la république. ci élection bi waaw waaw d' accord naa ak moom. ok mm-hmm. fi ñu koy jeexalee mooy Juan Branco. Mm-hmm. moom ginnaaw bu président waxee ne du doon jot na bind a statut ne yoon bi leer na pour Ousmane Sonko mu mel ne également que moom it dafa tax trop ci combat bi mel nii. oui mais c'est-à-dire que Juan ku ko xam ku ne man j'ai essayé de le connaître et 33 ans la am ah. c'est un jeune mais am na doctorat. mais surtout am na jaar-jaar. Juan Branco nekk na avocat boo xam ne dafa ne à partir de maintenant man du ma fayee ko ci sama liggéey avocat damay liggéey ngir yàlla. c'est un multimilliardaire la day bind ay livres xam naa bu bindee livres yi livres yi lu ñu koy indi ci alal. mooy ëpp peut-être lu muy fayee ko mais moom moo choisir ne moom day jàpp ay cause jël na cause Ousmane Sonko day dem ba jeex c'est ça la jeunesse aussi c'est pour ça que c'est beau de voir les jeunes se battre et c'est on ne pas gagner contre les jeunes mm -hmm. a essayé de gagner contre les jeunes en disant que il y une certaine jeunesse malsaine mm -hmm. boobu Macky Sall ci la bokkoon ñoom ñoo ko jëlee ci ci ci ci nguur gi donc Macky aussi c'est la même chose il faut pas s'attaquer aux jeunes mhm. les jeunes sont sacrés parce que ñoom du ñu tay du ñu fàtte donc de ce point de vue là les jeunes sénégalais comme les jeunes français et ça je trouve quelque chose de magnifique lu rafet parce que xam nga toujours dañuy nekk fii di di ñaxtu ci France France France dégage mais dañuy gis ne am na France yoo xam ne c'est ay nit yu baax lañu comprendre nañu suñu jafe-jafe yi donc ça veut dire que demain mun na am benn relation bu bees diggante bu bees bu rafet diggante France ak euh, Sénégal avec des gens comme Juan Branco c'est un gosse que j'admire beaucoup et du fàtte de moom. du bàyyi léegi. li nga xam ne moom mooy xeex bu mu def contre pour euh, Ousmane Sonko. Mhm. et contre euh, Macky Sall. parce que ñoom ñoo ko tooñ nag. Mhm. waaw ñu ko woon jàpp. di ko pamte pamte ci aéroport. voilà léegi def na affaire Macky Sall def na affaire boppam. te donc je veux dire qu'on va encore beaucoup entendre compétent. Mhm. et il y a des raisons de penser que ay dossiers CPI fii. wala ay plainte France. sama gars yi nañu préparé daal. gaa sax ñu ngi naan dina am bés. gaa sax ñu ngi naan CP bi moo tax président dellu gannaaw. man ñu ngi naan CP bi moo tax mais mun na ci bokk parce que gis nga sa dossier bu nekkee CPI. Mhm. mooy comme justice rek suñ la yóbbee gars yi seen lay teg bët suba boo defee dara lu garaaw ñu xam ne yow yaa dugal sa bopp. mais président nee na yooyu fi caaxaan rek rek mu dajale maire yi. waaw mais <laughs> mais c'est normal moom mooy président gis nga gis nga li ma neex ci affaire wu Branco bi. wan Branco ak euh, CPI. c'est que ñoom dañoo yàgg a fitnal sénégalais yi ku contrôle ak ñoom ñu yóbbu la procureur ku ko ku ku ku saxat sax ñu yóbbu la ci procureur jëkk mhm. jékki rek ñoom tam ñu yóbbu leen procureur waaw ñoom tam nañu topp yoon bu la woowee nañu dem wuyu euh, euh, yoon mhm. CPI yoon la donc loolu jarul tiit jarul ragal mhm. parce que du façon la la la justice internationale elle se fera li ko mën a empêcher rek mooy nañu dal nañu bàyyi fitna bi mais bu ñu continuer di fitna. Euh, su booba du dina yàgg. mais benn bés dinañu dëgg ne diw diw diw ñu ngi CPI. ok euh, di rappeler également que yaay secrétaire général bu INP bu Sénégal euh, lan mooy doon taxawaay bu vous êtes ci élection yi jëm. je pense qu'on sera candidat dinañu nekk candidat waa ñu ngi préparé nag mais xam nga bala nga wax ne candidat la dafa am condition yu ndaw yoo war a satisfaire. parrainage ak yooyu. non du sax yooyu yooyu yoo gën a ci moom moo gën a ci moo gën a. mu gën a yomb mais xam nga élection nag xaalis la koppar la dafa laaj koppar koppar bu bëri la. Uh-huh. donc ñu ngi ci ñu ngi defaru tam sur le plan national comme international. parce que boo nee damay nekk candidat il faut nga am nit ci lay toggal ci gox bu nekk. Uh-huh. donc loolu condition yooyu ak condition xaalis bi boo ko réunirul nekk fii candidat daal da ngay sonal sa bopp sonal ay nit. donc euh, mais suñu parti euh, dans tous les cas de figure nañu bokk ci élection yi. waaw est-ce a des tractations venant de yenn ci parti yi ñu xam Ousmane Sonko wala Idrissa Seck wala. pour pour pour dem ak ñoom. waaw non de façon déjà ñun naturellement on est allié avec Khalifa Sall. donc taxaw Sénégal ak UNP. Euh, depuis 2017 ñooy ànd. Euh, peut-être aussi pourquoi pas avec Karim Karim Wade parce que man sama bopp Karim Wade sama xarit la. voilà donc on ne sait pas peut-être que on verra toutes les possibilités sont ouvertes mais premier choix bi mooy ñu bokk ci élection yi comme n'importe qui donc vous ne serez pas surpris ñu ne leen. candidat Union nationale patriotique mu ngi nii. ngeen invité ko pour mu. ñëw <laughs> déroulé fii voilà. <laughs> incha allah voilà euh, xam naa dañu koy jeexalee ak la sortie de Issa Seck moom nee na tout acte de justice dañ ko respecté et que ko écarté aussi na gëm yàlla. bu ñu écarté kan Ousmane Sonko. waa xam nga euh, moom nag xam naa peut dafa gis Ousmane ne benn danger pour mu mun a nekkaat président de la République. donc c'est normal daa mel depuis depuis bi ñu ba léegi dafa xaw a mere Ousmane Sonko. non du sax loolu gis na ne Ousmane bu bu an bu dem. Ah. Euh, usman moo ko ëpp d' abord Ousmane moo ko ëpp nit instant bi mais surtout peut-être euh, na na ma sama euh, xam camarade xaritu yi nekk réew mi ñu baal ma ko comme genre ñoom as as Babacar ak le ministre Ali Saleh mm-hmm. mais li may bëgg wax ne mooy instant bi le vent c' avec Ousmane Sonko usman Sonko bu bokkee mm-hmm. peut-être que moom du mun a am ndam te loolu c' normal muy fexe boo mu bañ a bokk. mais nag ma ngi fàttaliku ne Idriss Seck dafa ne woon moom bu nekkoon coobaree boppam. nañu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk. waxoon na ko fii mhm. devant le président de la République. Mhm. waxoon na ko ci yeneen eh, yeneen yeneen kii yi voilà mais c'est quelqu'un qui cherche des solutions parce que n'oublions pas aussi que moom mooy chef de l'opposition <laughs> donc fan yii bu ñu ko bu ñu ko confirmer il est obligé de chercher des solutions donc kuy uti solution nag doo exclure n'importe quelle solution donc peut-être que gis na ne loolu c'est une des solutions mais mu ngi continuer di la République Euh, Ousmane Sonko mu bokk ci élection yi. voilà mais nag euh, moom borom bopp la borom bopp la <laughs> macha allah. merci beaucoup euh, en tout cas professeur Dafa merci. merci beaucoup sëñ Bamba c'est toujours un plaisir de venir voilà de façon c'est un plaisir de venir ici waxtaan yow ak say internautes yi ak say followers yi di leen encourager tam toujours pour ngeen dem kanam parce que au fond ñun dañuy politique. mais du ñu ñooy soppi réew mi. Mhm. kan mooy soppi réew mi mooy des jeunes comme vous des entrepreneurs comme vous. Eh, di def seen i organe de presse di ci diñ ci invité ñuy waxtaan ak askan bi donc euh, vraiment loolu amuñu seen fay quoi. di leen jaajëfal merci beaucoup professeur merci beaucoup jërëjëf koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom professeur ci nango bi nga xam ne nango na ko ñëw toog waxtaan ak ñun c' est toujours un plaisir en tout cas ñuy waxtaan ak moom suba nag ki nga xam ne moo di honorable député Moussa Diakhaté moo fi teew bu ko defee dinañ waxtaan ak moom lu bëree bëri mu ngi bokk ko gërëm Noreyni mu nekkoon